asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu waa diaspora bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen yéegu waaye man la Amy Niang géwél seen xarit seen fans maa ngi nuyu sama xarit yi nuyu sama fans yi nuyu ñu may bége ah tubaarkàlla macha allah indil leen nag seen cosaan cosaan démb nag soo ko déggee li mu wundu bari na ndax cosaan dañ koo commencé waaye dañ koo bàyyi léegi te ku ne xam na ni ah ku ne xam ne nit dafa am cosaanam te cosaan nag boo déggee cosaan danga naan démb ni tey ndaxte nag démb sunu maam ya ak sunu yaay danoo fonkoon cosaan lool sax ndaxte nag ku ne da ngay fonk ca cosaan léegi nag dañ koo bàyyi ndax topp suñu dëkk bi rek xam nga moo tax lii xew di xew lii am di am ndax ku bàyyi sa cosaan dangay ngay réer ca loolu nag moo bari ci dëkk bi ñu bëgg nag loolu jóg fi ñu dekkalaat cosaan na suñu maam ya doon def na suñu yaay ya doon def jàpp seen cosaan fonk seen cosaan loolu lañ bëgg a indi ma di ci waxtaan ak yéen nag tey nag émission bi ci leket la ñuy waxtaan leket ndax tubaarkàlla leket gii ah li mu bari na de ndax leket mënu la maye sa borom kër muur la nga sëy la ngay njëkk lekk leket lañ lay njëkk a defal laax nga lekk xam nga lu waral loolu pour ñaan yàlla sëy ba law ndax leket loo ci def day law looloo waral mu defaluñ la ko ci bool defuñu ko ci palaat ci leket lañ la koy defal ndax leket lawtan la dama ko daan dégg ci sama ñoom maam ñu ne lu ñu gën a fonk seen cosaan mooy leket cosaan yi bari na de mais lu nekk aadaam mais leket dafa baax tey jii boo amee doom ñu di ko tudd leket ngay jën def ca ceeb def ca suukar def ca xorom def ca guroga di wat xale bi loolu ñu def day saf bu xale ba màggee day am xorom bu dee góor la tubaar kàll macha allah bu dee jigéen day am xorom a ah, lu ko waral lekket ngeen ko def moom sooy dem marché dañ la naan booy jël jël sañseel ba jekk gàddu sa leket dem marché te xale yi léegi dañ koo bàyyi ma bëgg na jeeg ju ndaw ji xale yu ndaw yi ku ciy dem marché sañseel ba jekk ruunu ba defet gàddu sa lekket dem duggi di boo yenoo sa lekket dem marché jeeg bu la njëkkee gis day kontaan ku la gis day bég xolam day frigo ndax lekket dafa baax lawtan la boo xamee ci suñu ñoom maam dañ daan def lu ñu def boole ko ci ay peñ a marché ak siwo marché léegi la am amul woon leket lañu ñu amoon suñu maam ya lekket lañ daan def yenu ko dem nduggi ko ba mu fees indi sama mbokk joolaay maa ngi leen du nuyu di leen ziyaar samay xarit lañu bu ñu amee seen programme yi xew am seen mariage paan la ñuy def def ca ndox ba mu fees jël legen dëpp ca lu ñu tëgg mu wuyu leen xanaa gisu leen Seyda bu ñang bundoo ndoo yàlla xippe xippee àjjana lekkat la daan jël dëpp ko da ca tëgg lu mu ko jox rek son ba ñëw léegi la ñu jël bool ak di jël ay paan mais leket lañ daan tëggee ngoyaan bi leket nga koy tëgge mu neex ba bëgg a dee damaa bëgg nag ñu fonk leket delloo si waat leket leket kat tubaarkàlla macha allah lawtan la boo yàpp sa doom doo jënd bagage mukk mukk mukk mukk ca jëndoo leket déedéet bagage yoo mënti jënd lu mu rafet rafet rafet di nga jënd leket dugal ca ndax lawtan la ndax la ñoo maam ya daan def sunu yaay ya di ko def ba tey ñun ñu judd bëgg koo bàyyi déedéet damaa bëgg sama doom yi ku ci dem marché defal leket sañseel ba jekk jënd sa leket dañu naan laan sax même soo ci deful dara utal leget nga bàyyi ko sa biir kër ndax gàllaaj la yenn saa yi da ngay toog nit ñëw ni la diw abal ma leket dama ko soxla fu ne nga dugg fa di ko ba déedéet da ngay jënd leket bàyyi ko sa biir kër gàllaaj la ndax leket li mundu dafa bari tey jii am na ñoo xam ne ñu ngi dem ci làmb ji di bëri ñaan yàlla am ndam leket la ñuy jël def ci seeni bagaas sotti koo ko mbaa ñu yenn ko dem ci arène ba suñuy ñëw la macha allah am ndam kon xam nga ne rek li mundu bari na ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nag mi ngi ci biir secret boobu nañu jàpp leket fonk sunu cosaan xale yi dama bëgg ñu delloo si waat cosaan ndax cosaan kat tubaarkàlla macha allah moom la suñu maam ya nekk woon kon nañ ñun nañ ko continuer leket gi lawtan la sañ sa ba jekk gàddu sa leket dara dina koo neex soo demee sa programme sama mbokku séeréer yi tey jii seen làmb yi du ñu jël sabar du ñu jël paan du ñu jël bool leket la ñuy jël ndax xam na li ne ci biir xam nañ secret bi ne ci biir ñun ñoo ko xamul mais ñoom xam nañ ko leket dafa am secret bu ci nekk loo ci laal day law soo ko toggee tey jii bu subaa ginnaaw yàlla danga koy toggee war boo ko demee marché bu subaa danga koy defar moo tax suñu yaay dañ daan def lu ñu mën a jënd seeni bagage dañu jënd leket def ci ndax secret la ci biir ca lawtaan la doom bu fekkee dañ laa digal gàllaaj ni la yow kat boo demee nangam ak nàngam defal sa doom yu dee ba dee bii la naan demal jënd leket boo jëndee leket def ko gàllaaj garab yi ba mu fees nga teg ko yenn ko sa doom tubaarkàlla macha allah kenn du ko mën a catu kenn du ko mën a liggéey ba nu jàpp ko kenn du ko mën a def dara ndax secret boobu lekket ko waral moo tax nag tey ma bëgg ña daan jël siwo nanu bàyyi siwo ña daan jël bool nanu bàyyi bool leket lañu wax lawtan gi ci ne secret bi ci ne mësta am jeeg ju baax ñu biriis gëm seen bopp nañuy farakante leket ah am na solo de secret bi ci nekk bala nga koo xam sax nag tubaarkàlla macha allah nga utiliser ko jëlal leket dugal ko sa biir kër bàyyi ko fa xool rek ay fan ndax du am changement wala déet ah cosaanu démb moo fi amoon sunu papa yi ndeysaan yàlla nañu xippee àjjana alaaji Assane ma roqee Samb Demba Lamine juuf alaaji Kaani sàmb sunu baay yooyu nga xam ne dañ daan waxtaan ci cosaan ñu dem nag seeti benn magu démb mu waxtaanu ñu nag ci cosaanu leket dolli ñu ci cosaanu leket dem dikk du ko yàq ñu dem te ñëw waa tey nag dañu ñëwoon seet si sunu yaay mu waxtaan ak ñun nag ci cosaanu leket ndax ku ne xam na ni nag lekkat dafa am solo ci sunu yaay yi nak di magu demb bo beugé ciosan da ngay ñew ci ñom ñu set sunu yaay waxtaan ak mom nak bëgg mu wax ñu nak li lekkat di jariñ ciosanu lekkat yaay ma ngi lay nuyu. ma ngi leen di fay bu baax sant yalla bu baax jullu ci yonent bi di gërëm sunu waajur di ñaan lu baax dekk bi yalla fi yalla def jàmm wàcc fi jamm ci barke yonent bi ah li ngeen ma laaj amna solo legen moy ciosan boo déggee ñuy wax cosaan dëgg-dëgg mooy leget ndax sunu maam yi soo gisoon sax ñuy def lu baax di ko wax muy antu mooy leget leget fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi dëkk bi sax am na ku ma mës dëkk bi xamul sax mu dellu ginnaaw mu ne mun ma siwo yi niy dugge bàyyi suñ cosaan ndax ba sunu maam yi ñun sunu yaay leget dañ ko naan kër goo duggoon am na juróom benn leget bay araw bay mooñ bay dem marché dañ ko daan tegle ne di ko raxas da nga daan lekk raxas leget ba mu weex tal nga yenu dem marché soo ñëw da ngay téeñu ndax doo attal leget gi téeñu teg ko ca ko loolu mooy cosaan li première ci leget leget dëkk bii ni mu woowee nii dañ doo wax li ñuy duggee moo tax dëkk bi woo ndax leget mooy cosaan soo amee doom su ne araw ci lan lay araw tam xarit ci la ñuy mooñ loo gis rek ci leget gi booy sebet ceeb sax si leget nga koy sebet kër gu la gën a wow rek mooy nga ñàkk leget man sama kër juróomi leget ak ron lal di boo koy ndoo gis leget leget mooy cosaan sunu maam yi moom la daan liggéeyee leget ak këll ñoom moo amoon ñun sunu bool yi ñu tam tam amuñu ko woon nga daan dem ci kër fekk lu ma juróomi këll këll bii la ñuy eh, mooñe mburu sax dañ ko daan dagg ci leget def ko ba fees ku ñëw jël sa mburu dem waaye léegi amatu ko ñu ngi ci boole ñu ngi ci course yi loolu amul sens li gën a tardeel dëkk bi ñàkk bañ a sa leget te kii mooy cosaan soo gisee sanu mag ñu njëkk ñu avancé soo gisee ñu baax dem ndax day law kii boo demee ba fekk fan koy ji day law doon nii su ñëwee moom la ñuy defar ba mu yëg mu doon leget kon xanaa kon loolu cosaan la leget lu yàgg la jiitu na ñépp moo taxoon sunu maam yi am lu baax boo daan dem di dugg néegu góor laax bi lay toggal ci leget lan koy ràcc ràcc def diw def diw ñor defar la nga dem del siwaat ànd ak say morom ñu ràcc ko lu waaye daan wuti rek ci leget nga ko daan léegi nag nit ñi dañoo bàyyi cosaan ku bàyyi cosaan ak cosaan la lakk san lakk yëpp ñàkk cosaan la loo wax ñu ne amul problème baax waaye leget man de duma ko ñàkk sama kër damay gis suñu mbokk séeréer yi gis suñu mbokk joolaay ku ci am séet buy sëy da jël leket mettre ko en defar ko ba mu rafet lu ñu def benn bagage ca boolewuñ ci leket ba xam loolu lan moo tax ñu di ko def. ñooñu nag ñoo bàyyi cosaan séeréer ak joola ba tey ci cosaan la ñuy jaar lu ñu def rek cosaan la séeréer léppam leget la ci la ñuy lekk ci la ñuy araw ci lañuy ñuy mooñ ci la ñuy suñu yóbbu seen seet leget la ñuy jiital ci biir néeg moo taxit gis nga séeréer nu mel. séeréer léppam da ko da ko normal awale ko ci yoon ndax cosaan ñoom bàyyi wuñ cosaan de bu ñu rootee paan ndox sax ñooy jël leget bu ndaw def ci biir ndox ndox ma la ñuy indi ba ci kër moom la tuddee laytan séeréer séeréer léppam leget la lu muy tëggee sax leget lay doon kon séeréer bàyyi wu cosaanam moo tax yàlla féetal leen lim leen féete joolaa noonu la bindoo joolaa néegu joolaa ba dugg ma nga jël leget mbattu takk ca buntu néegam jàkkoo suñuy li ñuy fawee sax dañuy jël leget defar ko ba dootoo dootoo gis leget ga sàdd ko ay per ba mu rafet moom la ñuy fawee kon ñooñu xam nañ cosaanu leget séeréer séeréer joolaa ñoo xam ñun ñun ñii ñoo bàyyi seen cosaan waaye ñoom ba tey ñu seen cosaan lépp lu ñuy def bu ñu yóbbu seet néeg ba moom la gànn suñu suñu duggee ca néeg ba leget lañ fay jiital suñuy génn moom la ñuy génne ñoom bàyyi wuñ cosaan ñoom ba tey seen cosaan dafa dafa ànd de séeréer joolaa moom moo taxit gis nga ni leen yàlla defal tam ndax bàyyiwul leget gi dafa am lu mu lu mu jariñ de dafa am jariñ ci doomu aadama ba tey ñoo ngi ñëw ci leget dama gis sama mbokk pël yi bu ñuy jaay soow dañuy def soow ci leket boo demee seen dëkk bu seen borom kër wàccee dañuy def la raxasu nga raxasu ba set ñu jox la laax def ko ci leket bu set jox la ngay lekk jël soow bu ñuy jaay soow dañ koy def ci lekket jël kook teg ci di ko jaaye soow mi léegi loolu nag laa bëggoon a xam loolu ban kii la pël lépp doo ko gis mu jaay soow ci sibo mbaa ci pot déedéet legatam lay joos ba mu weex mu woyal ci soow ba mu way mu yenu ko ba lay dugg ñaari kër ñetti kër léegi soow ma jeex mu ñibbi këram raxasaat legatam ba mu teg mu teg ko bàyyirale sax ci ñoom buñ jaree soow ci leget lañ ko def buñ yekkee laax ci leget lañ koy def caag bi sax ci leget lañ koy def pël moom pël moo tax gis nga pël ni mel pël delluwul ginnaaw de mosoo gis bu dellu ginnaaw ndax fonk cosaan ñoom bàyyiwul seen cosaan ba nëgg ni boo bàyyi sa rek li ma la wax cosaan ku ko bàyyi di diñ ko gis pël moom moom moom leget laytan lañ ko tuddee kook la ñuy def seen jar ba mu fees ñu jël seeni kook kook la ñuy naane soow pël pël <laughs> ñetti race yooyu nga ma wax ku ci nek seetlu leen ndax delu non ginnaaw delu won ginnaaw lu nu bëgg ñing koy am ndax bayyi wuñ cosaan cosaan boko bayyi bàyyi cosaan kenn ko bayyi lañ lay digal xalé yi suñu moroomu jigéen yi bu ñuy dem marché mba ku ci nek sa néegu sey lo leen ci digal ku bëgg avancement mbaa nga bëgg déggok sa njabot leget nga utiliser ndax suñu maam lool loolu lan daan def dañ daan del leget jos bam mu set duy ko ndox ba mu fees sax ñaan seeni ñaan daan teg ku ñëw tànq naan ak mbàttu dem moo tax sunu waajur yi gis nga seen cosaan ni mu bindoo nuroo wut ak ñun kon maa ngi leen di ñaan xale yi ngeen dellu cosaan ngeen dellu ci leget néeg boo dem na fa leget nekk booy moñcere jëlal leget léegi nit sax dañuy araw ci bool di moñ ci bool déedéet mun ko defati leget yaa ngi fi am fa gaay soo defee ñaar téeméer am boo amee ñett téeméer am nga raxas sa leget ba mu set nga ci def delluwaat leen cosaan xale yi su ngeen def delloo cosaan naataange rek ngeen di am dëkk bi dara delloo delloo delloo ko ginnaaw ndax cosaan gi nu bàyyi cosaan rek am solo leket nag moom laaj ngeen ma nag lu baax léget gi lu ne la am ci àddina amul lu mënul ngeen sama yaay ji li mu wax nag ci cosaanu leket wax ko ci njariñu leket ku ne xam na leket am na njariñ maa ngi ñaax jeeg ji na ñëpp fonk leket da ngeen jël leket defaat ko ni ko suñu maam yi defee woon ndax leket dafa am solo dafa am njariñ dégg ngeen sama yaay ji léegi li mu leen wax ci cosaanu leket ak njariñu leket na ñëpp fonk leket maa ngi ñaax jigéen ñi sama mbokk jigéen ñi na ngeen bëgg leket na ngeen jënd leket di ko utiliser di ko ndugge bu bu bu bu suñu maam yi buñ daan sebet leket la ñuy sebete kenn du sebete bool mbaa paan mbaa mbaa dara leket ngay jël léegi sax nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy commencé di roy di def ay leketu weñ leketu weñ amul solo leket bii la wax ndax bant bi moo am solo ndax leket mën nga cee def koob di ci naan fonde suñu mbokk pël yi lu soow neex neex neex ci leket lañ koy def yenu ko teg ci seen layu muur ko jaay ko leket mën nga ci am yomb yomb bi nga xam ne dañoo yàkkamti bu tam xarit jotee boo demee ca marché ba jënd yomb pour def ko sa cere ndax day law lekkete ko waral loolu lépp ci njariñu leket la kon nañ fonk leket dañ ko fonk na nit ñi di jékk jënd lekket na nit ñi di demee marché lekket na nit ñi di jënd lekket di def seen biir kër yi sama mbokku jeeg ji maa ngi leen di ñaax fonk leen leket leket am na solo de njariñu leket bi ci biir ah loolu ëpp na buñ wax buñ toogee fii di waxtaani mbiru leket fi la ñuy fanaan kon nag leket am na solo na ko ñëpp fonk maa ngi ñaax sama morom yi jeeg sama doom yi sama rakk yi na ñëpp di fonk leket na ko ñëpp di utiliser leket am na solo de li mu wundu bari na maa ngi leen di jox di daje chaque samedi fii lay xewee am ñeen géwél seen soppe seen xarit